mais li nga xamante ne moo am solo mooy Sénégal am na programme léegi programme bi déwén la war a jàll banque mondiale bu ko defee ñu restructurer mbëbës progressivement liggéeyaat ko boo demee ci dëkk yëpp li mel ni mbëbës dañ koy defaraat bâche ko tëj ko ba nga xam ne du yàqati dara ba pare nag def fa usine boo xam ne mbalit bu ñëwati dañ koy mën a organiser mais nag du ñu yem foofu boo demee fu mel nii euh, yeneen dëkk yi fu mel nii Saalum wala nga dem fu mel nii Bawol wala nga dem dans le sud wala nga dem dans le nord fu ci ne rek.

dina ci tambali euh walu mbalit bi tamit wax ngeen budget bi honorable député Diop si liggéey bi ñoko ko bokk jafe na trop té état lu ne dañ koy jël rek def ko ci ndodam deug la ay bor am na ci mais nak dama bëgg ñu xam tamit né mbalit bi bo ba ñu ci liguey té te bu ñu sañoon mu gëna am résultat mu gëna set loolu tamit il faut ñu liguey ci man bima ñëwé dama fekk ngeen am un système de certification des factures bo xamantane mom lañ daan utiliser légui ñu def appel d'offre appel d'offre bi jógee suma ma 14 milliards dem ba 12 milliards dem ba 9 milliards li ci doon li ci dess doon yenen élément ay salaire ak yoy donc jaaduna bu fekkee wàññeeku na état bi wàññi mais gis ngeen ne bu année bi évolué buñ ñu ba LFR ministre des finances amna effort yum daan def te gis ngeen ne LFR bi yëpp def nako kon bu at bi tambalé rek buñu ñu tiit dinañ ci egg waaye tamit war nañ gën a ci ni organiser mbalit yi te ñu xamné tamit euh, gestion des déchets yematul rek ci fay ay concessionnaire té lool ben partie liggéey bi la bu féké né dañ am mbëbës mu melni c'est parce que li am yëpp dañ koy yemale ci fay ay concessionnaire faaw ñu def ay investissement bu ko défé ñu am usine yi traité mais buñ jëlé jëlee bi yëpp yemale ko ci concessionnaire yi rek du dem mais ma ngi leen di rassurer né LFR bi rek amna 3 milliards yu dugg té it 2020 ni ko ministre des finances en défé défé na buñ doxé ba LFR top lu ci war rek dinañ ko def ngir résorber té yéenay suñu partenaire té ni ko président waxé rek ñaanu yalla di uti ay partenaire bitim réew ñu ñëw di gérer suñu mbalit mbaliti mbalitu sénégal la yeen ñun wa sénégal ñoko ko gérer suñu bop wax nañ fi nak ay question yu diverses yu bari yo xam mënuma ci ñak delu ci lu melni ni euh, d'abord namora namora wax ngeen ko dafa doon lo xam euh lu metti la ay sénégalais yu gorlu ñi nek bitim rew ñi nek sénégal ku ci ne jël li nga am di jox

jox instruction ministère de l'urbanisme depuis le ministre Diène Farba Sarr mu def ci liggéey bu am solo bi ñi défar pôle urbain de Daga Kholpa mu génné ci 65 hectares ba aljuma xawma jeudi rek ñi ngi xol plan bi bu baax 65 hectares ya nga fa ci biir année 2020 bi dinañ ko organiser lotisser ko seeti leen ku ci ne ñu dem jox la donte sénégalais de l'extérieur la wala sénégalais loolu man maa ngi leen di rassurer ne ministère de l'urbanisme 65 hectares yi jëm ci Namora sécuriser nañ ko mi ci plan ou pla le pôle urbain de Daga Kholpa. y a ci leneen pôle urbain de Yen, le pôle urbain de le délégué général bi nga xam le moo ko yor dina leen ci le a wax dara le ngeen fi tamit ci walu woowu sénégalais de l'extérieur ma dellu ci wat né ak ministère des affaires étrangères ñi ngi liggéey 20 pour ñu leen bëgg jox ci programme euh, zéro bidonville programme 100 000 logements liñ ci bëgg tamit moy rétablir la confiance parce que gis nañ né mbirum logement

programme des Sénégalais de l'extérieur nous Europe alors que 80 des Sénégalais de l'extérieur sont en Afrique Afrique de l'Ouest Afrique centrale Nous sommes en Zambie nous Angola Maxime sama Moïse 2020 nous président de ndigal ñu wër jox information parcelle de terrain waaye programme yi nga président andil na ko wax ngeen tamit programme ville religieuse dégg naa ko église bi nekk Grand Yoff dinañ leen ci euh, taxawu euh, programme ville religieuse danañ fexe deux semaines prochaines ñu wax ñu dégg naa am na ci ay études yu ñu mos a def mel na ni kanen euh, lewoon na kaneen ca ak yeneen ak yeneen ak yeneen am na yoo xamante it mënuma cee ñàkk tontu sama mag Mamadou Lamine Diallo nga xam ne ñoo bokk point E moom xam naa dina mën a tontu sax Euh, Théodore Montaigne, man bi may don chef de division bi may don directeur ba bi may don ministre point la deuk ci keur gi ma dekkone waye nak bu njabot bi yokkoo ñaan na yalla am lu gëna reuy waye fa la deuk ba légui du deug donc euh, leneen li tamit moy mécanicien yi wax ngeen ko euh deuk buñ ko défar il faut ñu ferme il faut ñu organiser ndaxte amna désordre bo xamné benn activité économique mënu ko justifier ndaxte yenn saa nit wax recasement deug la ci yermandé di nga xol ne da nga wara recaser nit waaye tamit ki lay mooy ki yóbbu woon fenn mais fi nga yóbbu sa bopp du nit moo la fa war a jële lii suñu yéene nag bu ñu ko mënee mooy ci pôle urbain ci zone yi nga xam ne dañ ko ubbi ñu xool fa ay zone te monsieur le ministre Dame Diop moom mi nga xam ne mooy ministre de l'artisanat tey mën naa leen wax ne yenn mu ngi faak 50 hectares 10 hectares yi mu def ko casse 10 hectares yi mu def ko li nga xam ne moom mooy fourrière li ci des mu def ko centre artisanal boo xam ne nit ñi mën nañ fa defar di fa liggéey danañ fexe lu ñu mën tay ñu ngi fay yóbbu suñu ay épave auto mais li nga xamné mom lañ bëgg tamit moy nit ñi ñu respecter espace public. euh li nga xamné permis de construire day créer problème yu bari yenn saa yi ñu ne maire yi la yenn saa ñu né service urbanisme la en général permis de construire bu keuyit yëpp maté warul taxaw fenn mais bu fa joggé dafa wara dem fi nga xamné moy ci commune commune tamit yenn saa ñu am ay problème yo xamante peut-être euh motax mu yéex mais président de la république jox nañu ndigal ne nañ ko réformer réforme bi nag ci ñaari point yu gaaw rek laa leen koy wax bi njëkk mooy un maire bu ñu la joxee euh, autorisation de construire ba mu dépassé 28 jours te traité woo ko autorité administrative bi nga xamante ne moom mooy sous préfet wala préfet bi la jege moom am na droit def acceptation tacite bi signé ko au bout d'une semaine loolu bëgg nañ ko euh, dougal ci li nga xam moy autorisation de construire bu ko defee suñu compatriotes yi bañ di xaar lu yagg wala di jaar fo xamante ne mën na waruñu fon jaar. leneen li tamit moy ci walu hygiène publique l'enlèvement des gravats de déchets amna ko ko wax légui pays développés yi mayatuñu kenn ci mbedd yi bu ñëwé ñuy jaxase suuf di jaxassé ciment di jaxassé béton jal ko ci buntu kër yi ba nit du mënati jaar lool tamit amna luñu bëgg proposer ci ci code euh, ci autorisation de construire ba nga xam képp ku bëgg tabax légui mën nga jënd matériaux yooyu nga andi ko fekk ñu mélangé ba nga def ci mbedd mi mais leneen li am solo enlèvement des gravats de chantier am dëkk ne fa évaluer li nga a toj yëpp nga fay ko ci société wala structure publique boo xam ne moom da lay ñëw tegal la conteneur lépp toj nga tous les soirs ñu ko donc loolu moom quelques points yi nga xamante développer